di nuyu d'abord président des zones yi nekk euh, ci commune Thiès Est bi mais également nuyu les présidents des ASC e yi nga xamante ni tey ñoom ñoo ñëw fii ñu war leen a def la nga xamante ni yàgg nañ ko def ndax ku xam le président Ablaye Dièye xam ko ni euh, li ko ñor mooy développement Thiès li ko ñor mooy taxawu askan wi mais également li ko ñor mooy jàppale secteur yëpp yi nga xamante ni ci Thiès lañ ñun ak mouvement nawetaan nag jàpp naa ni lu yàgg la ndax at bu nekk daan jàppale. mbir mi dafa gën a yaatu ndax tey euh, dama jàpp ni président Ablaye Dièye nekkatul président euh, zone 1A rek nekkatul président commune Thiès Est mais tey euh, sama yéene mooy Thiès gi yëpp moo tax tey ñu yaatal mbir mi jël ay loo équipement maillot ak bas pour yóbbu ko jàppale ko. sunu ASC yi nga xamante ni ñoo nekk ci commune Thiès Est et je pense que ni sunu frère Sànq wax na ko dinañ gën a yaatal xool yeneen ASC yoo xamante ni nekk nañ ci yeneen zones yi pour jàppale leen parce que ñun li ñu ñor rek mooy Thiès képp koo xamante ni bokk nga Thiès soxla nga sunu appui dinañ fa ñëw dooleel la ci li nga nekk ndaxte sport bi bu ñuy wax nawetaan man dama jàpp ni nawetaan lu baax la ci gox parce que parce que association de jeunes boo xamante ni sport ak culture te nawetaan day dalal dëkk day tax dëkk am stabilité day dafay tax dëkk am jàmm parce que ndaw ñi aussi dañ leen war a occuper parce que ndaw ñi si nawetaan la ñuy démarrer pour que ëllëg ñu mën a aspirer à des niveaux international donc di wax nii rek la jeunesse soyez conscient que ni nawetaan du xuloo du xeex du sànni xeer nañu football si fair play si jàmm ak si salaam ba jongante bu amee le meilleur gagne parce que équipe bu mën a gagné ci Thiès bi euh, Thiès rek moo gagné donc di wax ni rek man ngi leen di féliciter di leen remercier mais également di wax ñun tey suñu coalition bi ñu teg di la coalition ànd Siggil Thiès coalition citoyenne dafa am programme boo xamante ni dina ko fësal ci sport surtout nag si wàllu football donc tey suñu club yi nga xamante ni ñoo nekk fii euh, Thiès di di nekk ci championnat national donc tey club yi am nañ euh, yéene joo xamante ni dinañ leen accompagner par des subventions yoo xamante ni day nekk des subventions régulières donc dama jàpp ni maire yi dafa am responsabilité accompagner le sport accompagner le football équipe yi nga xamante ne ñoo nekk si gox yëpp ñun de bës bu ñu di dinañ xam ni buñ doon def benn dañ koy yokk def ko fukk mais également créer cadre cadre boo xamante ni parce que ñëpp xamante ni tey Thiès seen problème yëpp mooy problème terrain mais ñun dañoo bëgg a moderniser loolu xool gox yi nga xamante ni tey bés bu bu bu ñu jox joxee maire dinañ am espace ñu jël espace yooyu def fa ay terrain de foot yoo xamante ni day gazonné nekk ay terrain ferme ay terrain yoo xam ay terrain fermé la ba pare di mën a jël ay foot à cinq wala foot à quatre pour pour que suñu ndaw ñi mën a nekk des professionnels je pense que loolu engagement boo xamante ni dinañ ko jël parce que léegi football ku ko gis xam ni euh, day bokk ci développement réew parce que tey si li ñu nekk nii euh, je pense que sax euh, loolu waruma ko woon annoncé léegi mais j'ai des partenaires yoo xamante ni tey ci football bi war na noo ñëw jàppale ñu pour créer fi ay terrain yoo xamante ni ay gazon synthétique et je pense que loolu ba ma koy mbëbët ba ma koy mbëbët boobu sax euh, xalaatum ma nekk maire donc euh, euh, am nañ statut yi am nañ kayit yëpp mais loolu tey dañ koy jëlaat dugal ko si programme maire bi nga xamante ni bés buñ ñu wóoloo jox nañ ko dinañ ko def parce que tey la jeunesse ndaw yi dañ leen a war a encadrer si football tegal leen ay infrastructures yoo xamante ni c'est la génération ndax tey Thiès mën a aspirer encore à avoir des professionnels bën dem di football au plus haut niveau mais je pense que ni loolu aussi lii tax mu mën a nekk foog cadre sportif yi cadre yi nga xamante ni ñoo encadré football bi ñu mën leen a fa ñu mën a defal ay formation mën leen a former te loolu je pense que nii war nañoo sax mën créer benn maison sportive benn complexe sportif boo xam ne à Thiès dina mën a di accueillir euh, euh, les sportifs pour des formation je pense que ni loolu maire yi mën na ko collectivité territoriale yi mën nañ ko parce que nit soo amee vision am gëm-gëm am ouverture internationale am un bon carnet d'adresse je pense que ni war nga mën a indi ay investisseurs yoo xamante ni dinañ ñëw fii eh, jàppale ñu ndaxte mën a récupérer les talents parce que Thiès am na ay talent donc tey Thiès tey eh, ñëpp xam xam na fi mu taxawee su le plan sportif sur le plan football mais nag am na ay jafe-jafe parce que gis nañ ni équipe yi manqué nañ ay moyens équipe yi manqué nañ ku euh, ñoo xamante ni ñoo leen di jàppale donc ñun kat suñu programme dinañ jiital loolu ba suñu club yi tey mën a nekk club yoo xamante ni ñoo fi indi ay final ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di wax ni rek euh, merci beaucoup